gars yi siyaar ma leen kër si nekk maa ngi lay jox sa wàccuwaay démb ak përki démb dama amuloon jot pour def vidéo si Amadou Ba mi dem Touba yow nga xaar benn gars yi dem dem màggal fële poroxaat yow amalaa laa def lu dul ne yaraax Touba te suñ bi sax yaakaar naa nekk ko woon moom mu juumul est-ce que demul sa sa poroxaan nga wóor ba pare nag tere fa sëriñ bi dafa tere politique yow nga dem fa lan laa fa demee dem pour politique moo fa yóbbu li ngeen bañoon soon ko moo fa am hmm? mu nekk ay soos yaa xamante ne doo ko mën a nattable doo ko mën a teg fenn te dégg na ma xaw ma nag foofu ñi fa nekk ñëpp ay set guides religieux yi nekk foofu yëpp dundee nañ ay millions wóoru ma nag dégg na ma loolu. moo tax du mën a ndax am waaye dama ne dégg na ma ba fekkee ne ndax am nag ñàkk jom weesuwul loolu waaw nit nag benn bëggul daxa la déclaré forfait yuuxu la yuuxu Tuubaa rek ëpp na tool ba pare yow daxal forcé daxal forcé nit ñi la alaa rawatina Tuubaa ga nga demoon bàyyi ba sëñ ba euh, bàyyi ba mm, mm, màggal euh, euh, poroxaan am na waa Tuubaa ñëppay dem yow nga ne ko sarax teewu yuuxu nen la te ngaa noppaliku wuri te ngaa noppaliku hmm? yéen yi doxut yéen yi doxut bàyyi leen li ngeen di def fee maanaam li ngeen def ah da ngeen ba da ngeen ridicule da ngeen ridicule devant les sénégalais wallahi azim da ngeen ridicule devant les sénégalais nekk leen ay nit ah waaye Touba kontaan na ma si yéen wallahi kontaan na si yéen. jërë ngeen jëf continue tey lañ ko fii rek waaw te bu duggee si campagne yi di nga xam ne lépp dëgg la.